ki xam la féete jariñu màggal ma tàmbuleete te wax la féete te xam la féete jariñu yi ñuy seetaan fu ngeen mën a ne ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production noo ngi am bu baax di leen jaara te di leen jox wàccuwaay wu yàlla wawar ci yéen waaye nag sunu wàccuwaay wa nga xamante ni bii mooy wàccuwaay bu sell noo ngi ci jiital euh, Cheikh Muntaqa Mbakke xalif général kull murit di ñaan mu yàgg fi lool Mbakke ànd ak wér mbokk yi xam ngeen ne ñoo ngi ci weeru tedd nga di weeru safar 1440 euh, euh, loolu nag mbokk yi moo sabab mbooleem njabootam gi fenn fu nekk nu baaxoo di santale Sëriñ Tuubaa yàlla ci bis bi nga xam ni noonu la ko waxee woon te bëggee ko ni euh, waaye nag mel na ne kenn ci ñoom euh, muy sëriñ xaadim ñang di doom ci sëriñ xaadim ñang moom sëriñ Afiye ñang moom soxna aw Buso euh, di jàmbaar joo xamante ne bii moo jiite daayira Mafatihul Bichri bi nga xamante ne bii moo nekk ci Touba Padoa ñoom mbokk yi xam ngeen ne safar gi ñuy amal at mu jot ren sëriñ xaadim def ci ab yokk bu am am solo muy 72 heures sant Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul di ñetti fani sant ñu xëyee ko euh, macha allah ànd ak taalibe yi sëriñ xaadim euh, mboolem ku di jullit fekk si ko foofu yi ca Padoa ñu bokk nag euh, sant Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba wala sant la yàlla Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba loolu moo tax nag mu defe ko ni ko ay maamam bëgge woon muy booleem lu ñuy defal cheikhul xadim sëriñ Tuubaa la mu ca bëgg mooy ñu ubbee ko alquranul karim waaye sëriñ xadim bi mu xëyee ànd na ak taalibe yépp bokk ubbee ko njàngum alquranul karim jàng nañu fi ay kaamili alquran yu bari jagleel ko sëriñ Tuubaa xadim rasul waaye nag yëkkati nañ fi ay xasiida yoo xamante ne bii moom sëriñ bi moo ko bindoon jàng ci lu bare bare bare bari addiyal ko cheikhuna cheikh waaye ba ñu jóge ci loolu bokk yi xam ngeen ni eh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba dafa santaane ne bis bi bu ñëwatee kenn ku ci nekk na nga ca bég te bégle ca loolu nag moo sabab mbég nag weesu bernde sëriñ xaadim ànd ak dayre daayira mafatihul bichri def ay bernde yu mucc ayib yoo xam ni képp koo xamante ni bii eh, eh, da nga da nga lu yiw lu sel bu ñu la ko taajee nga xam ni ay xéewal a ngi yooyu waajal nan ko nanu ko waa waajale te dara bañ caa manki eh, daayira mafatihul bichri moo ne la ñu ko àndeek sëriñ xaadim ñang waajal ko bu baax a baax a baax a baax bernde mboolem di jullit rawatina euh, ak taalibe waaye rawatina nag ñi nga xamante ni bii moo ëmb padd waa gépp fenn fu nekk ñu fexe ba bernde dem fa ñu ànd ak ñoom ba ñu yëg ni bisub seexu naa Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul te sant yàlla ak jaamu Yàlla ak dawlu bon la reto di magal sant leen ma Yàlla mi may ma lépp xëjoo ma bis bi di magal bu sant doole ñëw doole lu Yàlla fonk màggal ku dëkk Tuuba na fonk bis ba yaatal xolom ba ganam ña fay dal te wàcci lal ni te génn léegi dëkku si waay ni te jéema suural lépp lu sax wuti ka teeroo soo ndaxak la fajaru magal kii ka moom dara jafe borom Touba mi réew Bamba ko moom dara jafe borom Touba réew mi Bamba mooy kii ka moom dara jafe borom Touba mi réew Bamba ko moom dara jafe borom Touba réew mi Bamba mooy kii ka moom dara jafe borom

ba ñu demee nag mbokk yi ba guddi gi waaj a dugg ca la waaj nag mbokk ñu ñëpp dem ca tànt ba euh, def cérémonie officielle bi ci teewaayu njabootuk cheikhul xadim gépp rawatina kër cheikh Mouhamadul Fadal waaye nag ki nga xamante ne bi moo indi kàdduk sëriñ Abo Mbakke xalifab cheikh Mouhamadul Fadal mooy sëriñ Abdul Fatah Mbakke moom sëriñ Bachiru Mbakke moom cheikh Mouhamadul Fadal moom itam di kaddu yu am solo mbokk yi dinañ leen ko andil ngeen seetaan ko ci seen seen YouTube Tawfekh Production mboolem mbokk yi képp koo xamante ni bii jël na kaddu wala eh, nga wax témoignage ci Sëriñ Xaadim eh, macha allah rabbi daanu ko ànd ak yaakaar naa ne eh, li ñuy wax ne di duuf ci nag yi Xaadim nga wut ci seen te nag ñun noo ayee ñun sax noo war a mbokk taalibe yi ñu yëngu da cee am ci biir jëmm ñoo xam ne lu gàtt gàtt rek suñu kàddu ngir lan xañ na miin nañ ko ci daara ji ak boo xam ne ah, li ñuy ñaan suñu borom saa ñuy soññee ñu di ca ndax dafa jafe ci jamono ngay dara di dafa jafe loolu ngay soññee di nekk ci la ngay soññee dinaa faral di wax ne ñi nga xam ne dañoo féetoo di wax rawatina ci diine war nañu gën a góorgóorluwaat te xool bu baax li ñuy wax ci lépp lu ñuy wax mu doon lu wér dalil ba njët bu gën a màgg ci mboolem dalil yi mooy alquran boo ca jógee nga dem ci wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu dee noonu nag buñ ci jógee ci Sëriñ Tuubaa la daal di dal ndax ay wax a gën a wér wax yépp ndax moo wax ne boromam moo ne ko lu dul samay wax di wax yonente bi say waxama ko gënal mu jugi mu ne ko lu dul samay wax say waxama ko gënal mu jugi mu ko ahmadu say waxama far gënal wax yépp moo tax mu ne xasiidati faaxa xazahil al kiram wali taxoolu abadan xayral maram moo tax waxi Serigne Touba ah bu jógee rek nga xam ne ki doon wax wax ji nag bokkut ak ñi daan wax moo tax mu wax ne aktubu naqilan min allahil xafiif Serigne Touba ne na mbooleen li may taalif maa ngi ko toxalee lawhil mahfuus te képp ku am xel war a xam ne lii may taalif du toog amum xel rek moo tax waaye daa doon loo xam ne day bàyyikoo ca alliwuy suñu borom bi copier nag moo mën a gaawe noonu copier rek moo mën a gaawe ah, xam nga ne 33 ans yi mu def ak tubaab bi jot amu ko ak lim fi taalif ci ay xasida dundam gépp 75 ans la gannaaw ba mu lebee fukk ak juróom ndax boo demee ci dikkug Cheikh Omar Fouti Sall ca passe 18 Serigne Moussa Ka moo ko nettali ne Serigne Touba li mu lëkkum la ko suñu borom defal ci àddina quatre-vingt-dix ans la waroon am ci jamono waaye gedd àddinaam moo tax mu gedd addina moo tax mu fukk ak juróom gedd ko séddale ko ak njabootam jël juróomi jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha yeneen juróomi jox ko Serigne Massamba Mbacke jël yeneen juróomi jox ko mooy bàyyi Serigne Saliou Lo mu yoroon jumaa Njaareem la ko Serigne Moussa Ka nettale Serigne a gedd àddina ba dagg ci ak dundam fukki at ak juróom séddale ko ak njabootam loolu mësee su koo gis kon kat 75 ans yi mu am ci jamono nga jël xaaj bi nga xam ne daanaka bi mu woote yoonu murit am na fanweeri at ak nangam xam nga ne bi suñu Mor Anta Sali nelawee ba ca déwén sa di assasin ci la Serigne Touba woote wooteem bu rëy boobu wooteem bu màgg boobu wooteem bu siiw boobu nga xam ne njëriñ li lépp tey ci woote boobu la juddoo nga xam ne kon bi muy woote woote boobu at bariw kon bi mu fi jógee dem ci tukki bi ak bi mu ñibbisee ak fi ko jaarale fépp ak li mu daj ci ay coona ak i métit ak nattu génne ko këram teqale kooku njabootam teqale kooku taalibeem dëkk bi mu gënoon bëgg lépp ngir lan bëgg dundal lislaam li mu waxoon nasafatahu kulli min allahwi tahara wa sunnatu isa rabbi ufayyir bay bi woo fu ma ko déggee sama xel a ci Cheikh Saliou Mbacké ndax nag min soo batal xulti mat xaw fin raja maahum igzaro xusnin dawaman bil xanaati wa suhudu fi kulli fanin fagahu warahun maha tawakkul sabrin kulle sayrati teg te jihaadu nafsi wa sukur bil xada i ridan tar kutifaat ila halil bariya sëriñ Saliou Mbacké rek dëgg léeg-léeg dinañ wax ne diw dafa a fekk dëdduwul daa jékkuwul jamono su jekkoo jamono ñu xam ne dëdduwul ki dëddu mooy ki jekku jamono ba noppi woon ko gannaaw mooy Cheikh Saliou Mbaye dama ne ko fi nekkal Sëñ Bamba murid yëpp di la déglu ngay xalifatullahi fil ardi di xutbul xaws daana wax ne ku nu suñu borom maa la ëpp yërmande ci jaam yi ma lay sax Serigne Saliou Mbacké da leen daan sóoraale Serigne Saliou Mbacké moomee nga lalam bi gënoon a nooy mooy gong moom Cheikh Saliou Mbacké yéen yi gënoon a taaru ci moom mooy perkal oto bi gën woon a rafet mboolem oto yi daan war mooy Mercedes nga gis baraagam ba mu daan fanaan te ñu ne la kii mooy yilif jamono kii mooy xutbu samaan moom la suñu borom rek di wuyu jëmm joojee tey laas ba muy jëfandikoo nga xam ne ci faay la Dakar lay doon kooku moo jëkku jamono ba noppi woon ko ginnaaw moo tax mu ne min saw batil xul di mat xawfin raja mahahum igzaara husnin dawaaman bil ghanaa wa suhdu fi kulli faayin banahu warahum maha tawakkulu sabin kulli sahat fa Sëriñ Saalihu nekkoon daa jar di fàttali léeg-léeg di nga gis ku ne ca kaw ba fàttali fa mu nekk dañ ko faa teg te fekk na ka ko fa teg bis dina ñëw mu teggee ko te bu ko teggee fa mu ko dugal foofaa jar a xalaat Sëriñ Saalihu Mbàkke daa mel ne loolee daawul jot moom daana wax ne doomu aadama bu nekk am na ñaari muy sa biir bopp sa biir bàmmeel sa biiru bopp bu mu la yitteel na la sa bàmmeel yitteel Sëriñ Saali Mbàkke daana wax ne nanu jublu ci jaamu yàlla tey mooy ci yi nanu jëfi ndigali suñu borom yi tey mooy ci tere yi moo tax may faral di wax ne nun murit bu dee ak jaamu yàlla kenn mënuñu caa man bu dee dund sunnas Mustafa alayhi salaatu wasalaam kenn mënuñu caa man bu dee xam-xam it waruñoo nangu kenn man ndax sunu sëriñ moo xam ba xam lu nekkul ci ay fekk moo wax ne xafisuma sina an zafatiri fala takon an xidmati bi fatiri wala bu baax borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci dara ah wax moom dafa jafe danoo wax ne borom xam-xam wala a dof te man duma borom xam-xam kon naa doon dox ah, waaye bu ma sañoon ah mu góorgóorluwaat ndax bari nañu jóg ñu bari bari damaa bokk groupe yoo xam ne ci ngay xamee ne am na ñu bëri sëriñ bi neexu leen ñu bëree bëri dañuy diingat waaye mën mënuñu ko biral ndax ku biral fa waaye ñu ngi di ñu ngi diingat ci wax tasaw ëpp na te ku wax tasaw dara sëriñ Tuubaa nga a wa gora sëriñ Tuubaa moo beesalaat tasaw moo ko beesal moo ko dundalaat kon ku jóg daal ci tasaw sëriñ Tuubaa képp ko tax a jóg waaye nag da cee mën ta dal di nga dégg naan gars yi tasaw yi nangam nangam daam yooyu yëpp sëriñ Tuubaa lañ bëgg a waaye dañoo xam ne ku ñëw dal ci kawam fa waaye nag ñu am nu koy jaare di wàññeeku ak fi mu ne am na ay taal ñoo xam ne nee nañu ay taal bi la woon wàññi nañ leen ba gëmatuñ Sëñ Tuubaa nag ndax ñu ngi di weddi gàmm naan kenn war ci jébbalu ci kenn ah yu bëree bëri am na ci ay tout temps yoo xam ne ñu ngi ko tàmbalee dindi te dara waral ko lu dul ñàkk yéen yéen Sëriñ Tuubaa yi moo tax Sëriñ Mountakha lii mu ñuy woo nañ ci góorgóorluwaat ci sàkku xam-xam bu boobaa lépp lu teg nit a teg te muy xam-xam yi ñàkk solo da nga ko mën a daj xamal ko ne ko li nga yor wéeru li si Bamba yor wéeru ndax bu dee nii weex ne rek ngay gëm dama ne Sëñ Tuubaa waxoon na ko yàgg na fa lay sa yoojubu sa wàllu gis ni sa baaxal fatawa na der bu ñuul bi wëttatee ngay da ngaa war di xalaat ni ñuy xalaatee bokk Sëñ na dañoo defoon ne a yi téere ya nga xam ne ca àll ba la nekk ña ko taale kenn xamul lan lañu gëm téere yooyee moo leen gënal gëm téere yi sëñ Moussa Fallou moom sëñ Abdourahmane wax ne Sénégal nag moom da cee jaaxle ndax ñoom dañuy dégg gëm gis wet dégg gëm gis wet nee na moo am Sénégal dégg gëm gis wet kon bokki taali bi bu mu gëm kenn ku dul Serigne Touba ak bu njabootam moo ne ci dëgg tey li mu woote loolu la yàlla woote loolu la yonent bi képp koo xam ne nag néewu la yonent bi ak boromam nga ne ko bira bira suman baari sa nii bira suman yu baari sul mun taqiman baari saman noo ngi jégalu di santaat bu baax di jaajëfal seen xaalis di ko santaat ndax liggéey bi muy def ci daara ji na solo lool ah bu tukkee it mi ngi nemme ko daara ji waaye ñoom it ñuy ay jàmbaar ñu nekk fekk seen yeneen i nawle mën naa am ñoo bokk yoon wala bokkuñu yoon. moo tax ñoom it ñii ay jàmbaar ndax ñu ngi góorgóorlu ndax daayira bi fii lañ ko daan defee bis fi doon jaayee gis nga portable yi loolu lépp yàlla dogal ak ngant dal leen ci taxut ñu bari ñu gën a jàpp ngir jëm Serigne Touba te xam ba takku laxasaay waat doon benn lépp Serigne Abdoulaye Mbacke ci jàngale woon ñoom ñëpp di yëkkateendoo di tegandoo ba tey gis nga ku ñëwante goog daaw ba ak goog daaw jéeg gis nga kooku ren nga xam ne saa su nekkoon ak yokkute am na ci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 bisub sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegsi na fukki fan ak juróom ñett ci biir safar mooy bis bu mag boobee waral ñéppi safar